أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله bokki jullit bokki taalibe yi ngi nuyu ñëpp te di leen siyaara ci turu jëruñu seexul xadim seex muhammadul muntaka di ko ñaanal suñu boroom gën ko fi yàggal te may ko ak wér ak mucc ba yéene ji mu am ci liggéeyub Sëñ tubaab yi mu àgg ci fu kawe njortam te ñu ànd koog moom kàddu yi ñuy bëgg a jottali ci ndigalam lañ koy jottalee moonu woo xamal ñu ne dafa am ku ñëw ci moom jox ko aw këyit woo xam ne dénkaane sëriñ Touba daf caa nekk boo xam ne sëriñ bi da ko dénkaane woon ca Jolof ca jamono yam fa war a tuxoo ñëw njaareem ba mu ko déggee rek ca saasa la xam ne lii lu ñu war a tasaare la lu ñu war a yaatal la ba murit yi yëpp ak jullit yépp man cee jot ngir njariñ li amul fenn fu mu yem ñëpp lay maase jariñ te mu yéene leen ko ni mu ko yéenee boppam kon bismillahi dañoo wax ne bis bi nga xam ne euh, moom la Sëriñ Tuuba mujj fanaan jolof ba mu jullee gee ba noppi dafa dajale mboolem ña fa nekkoon ne leen dikk leen nu waxtaan dañuy bëgg a dellu ci réew ma li ma dese ci liggéey foofee laa koy liggéeye yéen ñii ànd ak man coono yama fay daj ak lu mu mën a doon ñoo koy bokk daa am lu ma leen di dénk loo xam ne na ngeen ko jàpp bala ñoo àgg foofa te bu ñu demee te bu ñu demee itam na ngeen ko jëfe nangeen ngeen ragal yàlla subhanahu wa ta'ala na ngeen ragal yàlla subhanahu wa ta'ala na ngeen ragal yàlla subhanahu wa ta'ala ne leen dégg ngeen ko ñu ne ko waaw Mbàkke mu ne te te nangu koo topp moom sunu borom na ngeen nangoo liggéey tey bañ a yàq nangeen ma fonkal julli juróom te di ko defee cim njàpp te di ko defee ca waxtu wa te di ko defee ci jàkk yi na ngeen ma fonkal njàngum alquran te bu leen ko wutal ab ab na ngeen ma fonkal julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam te bu leen ko wutal ab app na ngeen lewet te tabe na ngeen woyof te am fulla na ngeen am jom te am kóllëre na ngeen gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te sopp ko na ngeen moytu ak tooñ tey jéggale na ngeen soppante te nangoo toppante na ngeen nangoo muñ tey rafetal seeni njortu na ngeen nangoo muñ tey rafetal seeni njortu na ngeen yaatal seeni ginnaaw te bari na ngeen mën a muñ te am kersa na ngeen di wax lu baax te di ko jëfe na ngeen am sutura te am wëllëre na ngeen yéene ñépp jàmm te sàmm seeni kàddu na ngeen farlu te am faayda na ngeen laabiir tey tànn ay àndandoo bu leen iñaan bu leen siis aw leen ci siraatal mustaqim te bu leen ko wàcc mukk bu ngeen jógee fii ba dem ca réew ma bu leen def fu leen neex dem bu leen def lu leen neex def bu def lu leen neex wax bu leen def lu leen neex lekk bu leen def it lu leen neex naan lii ma leen dénk lii ma leen dénk ku sàmmoonteek moom dinaa la sàmmal sama bopp ba jofal la kon loolu mooy dénkaanib Sëriñ Tuubaa bi njëkk ba ca topp itam mu wax ne dikk leen a waay ma dénk leen bala ñoo dellu ca réew ma am na juróom benn yooyu ku ko bëgg ci yéen faw def juróom benn waaw ku bëgg jege yàlla sunu boroom nay fonk jàng alxuraan ku bëgg a mucc ci mbugalum bàmmeel nay baril salaatu ala nabi ku bëgg a barile ba dootoo ñàkk loo am jox ko yàlla sa borom mi la ko joxoon ku bëgg am ay àndandoo del aw ci yoon kuy aw ci yoon faw danga jot nit mbaa nit jot la ku bëgg a mucc bul tooñ mukk ngir kuy tooñ du mucc te kenn mënu ko musal ku bëgg a noppalu bum fayu ak tooñ ngir kuy fayu du noppalu te kenn mënu ko noppal sëriñ bi dolli ci ne yaar yi rekk nag moo fi ne muy aw yoon aku ñal ku ëwul ca yoon wa ne la wóor ne yaa ngi ci ñal yi ñal wi nga xam ne li ëpp ci nit ñi ci lañ jaar te wàccuñu ko laa leen bëgg a leeral fa muy mujjee ka ca jaar te wàcc ko aw ñal de képp ku ca jaar te wàccoo ko danga dox ba sonn doo jotub dëkk man nga weesub dëkk yi wéyit te doo ko yëkk te ñal wee ko waral pakk dana la fel dig dana la jam te doo far dara te loo réer la kenn du ko far di la ko jox deesu la dabit di la yóbbaale ne dégg ngeen ko ñu ne ko waaw Mbàkke mu ne ma wax leen ni ngeen di yore jigéen njëkk ngeen di leen yor ñoom day yàlla def leen bind ñeenti jikko yooyu moo tax yor leen yom jafe waaye yéen it am na ñeent jikko yooyu bu ngeen ko yoree dangeen leen mën a saytu ana ñeent jikko jigéen ñu dañ lay tooñ ba noppi njëkk laa mer duñ la gërëm duñ la yërëm ana ñeenti jikko yi ngeen war a yor yéen ba mën leen a saytu mooy yan dangeen leen di manal ba noppi di leen muñal di leen jéggal tey jëllale te xam ne jigéen ji ñu la jox li nga def ci moom ba ñu jox la ko rakkam ju góor walla magam ju góor soo ca defoon fukkam ngir bëgg ku la ko jox kenn du la ko jox kon manqué tax ñu di leen joxe bàyyi leen kuñ ci jox soxna rek nga jàpp ne da am jaam déedéet duñ seeni jaam yéen ñëpp jaami yàlla ngeen. dañoo bëgg rek ngeen ànd jaamu yàlla ci dëgg kon fexe leen ba lu ngeen leen di digalati na fekk ngeen di ko def lu ngeen leen di tereeti na fekk ngeen bàyyi ko tey tooñ gu ñu leen tooñati lu mu rëy rëy ngeen yëg ne tooñ ngeen yàlla lu ko ëpp foofu te mi ngi leen jéggal ak yërëm dégg ngeen ko ñu ne waaw mu ne ma wax leen ni ngeen di jabootee njëkk ngeen di am njaboot foofu wax nañ ne suñ Maxtaar Penda Jang dafa yuuxu daa ne ko alhamdulilahi mbàkke lii xamal nañu ne danañ am njaboot kon mu ne waaw ku ci dem ba am ñoo yëlif ci misaal ñuy fukk nga xëy woo leen bañ ñëw nga dénk leen nga digal leen li ngeen leen war a digal te jëmmi yàlla rekk tax ñu bàyyi koo fa juróom-ñeent yépp lànk li nga santaane kenn rek def ko ca bu leen ko xeebe seen bopp jàpp ne dangeen a matul ay kilifa bu leen leen ko sikke itam jàpp ne dañoo matul ay surga ana nu ngeen war a def sant yàlla seen borom te xam ne moom mi bind ay jaamam moom leen te leen ci ñoom ndax bi mu leen bindee ba noppi muy nit ñi ak jinne yi dafa wax ne wama xalaxtul jinna wal insa illa li yaabuduni binduma nit ñi ak jinne ñi jinne yi lu dul ñu jàmm ma te li ëpp ci ñoom dañoo lànk te mënoon na ko lijjanti fa saasa mënoon naa dagg ab yarit teg ku jàdd mu woon la ko mënoon naa lijjanti ñëpp it ñu jub kem tarfatal ayni ndax moo ne allaw yasaau llahu la hada nnaasa jamian te defu ko te moo leen moom sàkk leen bind leen yow mii nag ñu jiital def la njiit dañ laa sagal rek waaye moomoo kenn sakkoo kenn bindoo kenn kon nag rikk waay muñ gi ci sa borom am nga war ko mën a am ñu dégg ko ñu ne waaw ñeena mu jug dox ay jéego daal di taxaw ni leen nag yéen ñi nangu ak njëbbal ci sama tur ma dénk leen rikk waaye ku ñëwati fi seen kanam sukk mu wóor leen ne jëndu leen ko juru leen ko xeexu leen ci toolu xare ba jàpp ko yàlla rek a tax mu ñëw bëgg leen a jébbal boppam ngir yàlla la dale ca bis boobee ba ngeen ni bokk faatu ba ba ngeen ni bokk faatu mbaa kenn ci faatu bàyyi moroom ji fexe leen ba buñ xamati ci yenn lu ngeen leen gën a bëgg lu dul yàlla daane bu ngeen gisee may sonn saa yu ne ci di leen digal lu baax te bëgg ngeen sax ca di leen tere ab safaan te bëgg ngeen moytu ko leen rek ko waral loolu mooy lan saa yoo nekkee ci lu baax sax ca di moytub safaan aw ay lum bu jógee lum rëy rëy rëy rëy rëy jërta tiit jërta jàq taxaw koo jóg sa yoon ca kon loolu mooy kàddu sëñ Tuubaa yi mu dénkaane woon ba muy jógee Jolof yàlla na nu suñu borom may ak dégg ak topp ci darajay xaadimu rasul wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu